dal leen ak jàmm mbokku internet yi Cheikh Yérim Seck mi nga xamante ni gendarmerie daf ko convoqué woon mel na ni jamono ji mi ngi ci ab guut ndax placé nañ ko su garde à vue te su sàgganee tuuti dañ ko ci tegal ab mandat de dépôt ndax fas yéene nañ ko defeere ca talaate ji moom journaliste bii di Cheikh Yérim Seck yóbbu nañ ko ca garde à vue ginnaaw si nga xamante ne jot nañ ko déglu foofu la ca gendarmerie brigade de recherche bu Dakar jamono ji jébbal nañ ko waa gendarmerie bu Thiong ngir fas ko yéene fanaanal foofu tukkee ci waa libération online ab compte rendu moom la def jëbal ko procureur de la république ca saasa moom procureur de la république daal di digal way takk derrière ñu def ko garde à vue la koy toppee mooy diffusion de fausse nouvelle maanaam di tasaare xibaar goo xamante ni teg ca diffamation de la gendarmerie maanaam di yàq derub ñi nga xamante ne ñooy waa gendarmerie ak yeneen ak yeneen moom journaliste bi di Cheikh Yérim Seck fas nañu ko yéene defeere xewul ci diggante bi lu bees daanaka mën nañ jàpp ne danañ ko yóbbu ca kaso ba ca warto wa nga xamante ne waa gendarmerie ñoo ngi ko doon déglu way takk der yi mu doon jàkkaar lool jot nañ ko laaj ay laaj waaye lu ëpp ci laaj yañ ko doon laaj mi ngi jëm ci wàllu wàllum ñeenti milliards yi nga xamante ne moom la yëkkati woon ay kàddu xam la ne waa gendarmerie moom la ñuy saisir ci société bii di Bati Plus moom journaliste bi di Yérim sekk doon na xam la ci yooyu le kàddu yu mu yëkkati woon ci télévision boobu li 7TV ne lu tollook ñeenti milliards moom la waa gendarmerie jëlee ci société boobu di bati plus wante nag doonaka li ñu xamle ne moom la ñu jëlee ci ñoom lu néew la maanaam ab pàcc bu ndaw la bu ñu ko méngalee ak li nga xamante ne moom lañ fa jëlee loolu bokk na ci li tax ñu daal di koy wóolu ba ñu ko laajee mu indi ay tontu leeral ci mbir moomu la ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck daanaka delluwul ginnaaw ci delluwul ginnaaw ci ay kàddoom ne am sax daf koo gën a dëggal waaye leneen ñu koy laaj te mu bañ koo def mooy mu wax ana fan la jëlee yooyu la xibaar moom nag bañ na lank ba tëdd ci suuf ne du jéebaane benn yoon ki nga xam xamante moom moo ko jox yooyu la xibaar maanaam li tubaab di woowee source ci moomule mbir ci la waxtaan ba daal di tënku mbir mi meloon na nii loo xamante ne mën nañ ko méngalee ak ping pong su way takk der yi waxee jox ko moom it mu wax tontu leen Cheikh Yérim bañ na du wax fi mu ko jëlee takk der yi di woy ci di sàkku ngir mu jox leen ay firnde yuy wéral yooyu le kàddu yoo xamante ne jot na ko yëkkati yi lee xibaar ñu ko taataanee ci suñuy naataango libération dañ ci waxtu yu néew ci ruus ci xibaar dinañ leen ko jébbal jërë ngeen jëf